tey fi la ci Dougar am ño xamanteni ni dañoo fenen fudul Sénégal nek ay marocain ñew bëgg a nangu suuf si nga xamanteni wa Dougar ñoo ko moom dëkk fi lu tollok ci ñetti siècle depuis 2009 ba légui nak ñu ngi xol nuñ ci taxawé pour lolu baña am ba kérok ñun ñuy ñew di leen rejoindre ci combat bi kon dañ leen di jaajëfal ñom askanu wa Dougar bàyyeendiku wuñu ben yoon ba kérok tey jii ñëw nañ fekk ci leen ci léegi nag wax ji mom je pense que ni dafa lèr nañ musu leen gis sénégalais dem Tunisie wala Maroc wala fu mëna doon fu du Sénégal am fa ben ben mètre carré lan moo tax ñun suñu njitu réew mi nangu képp ki nga xamante étranger nga joggé jóge ñew bëgg accaparer soufu Sénégal nangu soufu Sénégal ci sénégalais yi li ñuy xeex te mu nekk xeex boo xamante ni duñ ci deltu ginnaaw mooy dañu bëgg suufu Sénégal dellu ci loxo sénégalais yi na suufu Sénégal dellu ci loxo sénégalais yi te loolu kiñ ciy njëkk a ki nga xamante ni moom la Sénégal muy le président de la République parce que tey jii li nga xamante ñun Sénégal ñoo ko moom mu patrimoine manam suuf seeg gàncax géeg géej géeg dafa am kenn ku ñu jël ñun ñëpp suñu ko dañ la ko kon ngalawaay dañ koy interpeller pour mu sàmmal ñu loolu bu ñu ko mënul sàmmal lu ñaaw kese mooy am te lu ñaaw bugguñu ko comme ni ko giimari Marius waxee bugguñu deret di tuur tuuru bugguñu bakkan di rot bugguñu gaañante di am ñu wax dëgg yàlla ak yonent bi di di janoog suñu ay frères policiers wala gendarme di defante defante yu méttee méttee métti bugguñu ko et dañu bëgg loolu mu deñ yeneen dëkk yi nga xamante ñu ngi Nous waruñu le président de la république suñu moomeel gi nañu ko sàmmal su ko defee jàmm mun am jotewuñu ak kenn dara racistuñu dàquñu kenn na nit ñi ñëw dëkk waaye mënuñu nangu nag nit ñi bëgg a jël Nous nga xamante ni lépp ñoo ñun bu interpeller toute la société civile organisation yep, la ñuy euh, interpellés. droit de l'homiste yep, la ñuy interpellé parti politique yëpp la comme nous ñu interpellé aussi le président de la république bi bi aussi il est le chef de parti de la coalition Benno Bokk de la même manière nous avons interpellé ñeneen chef yi ci opposition bi interpellé M2D que nous avons dëgg calendrier républicain nous respecté ko dëgg la créer une alternance dëgg la baax na waaye tamit nekk ci wetu askan wi xeex ngir ñu moom seen suuf wala ngir ñu jot seen souf d'accord. gën waaw ñetti condition yi nga xamante ni teg nañu ko mooy déjà ci xeex bi bimu commencer commencé bërki démb mercredi bataille. D'ailleurs, dañu am benn détenu actuellement bu ñu jàpp mu ngi ci oto bi am na détenu bo comment ni mu ngi garde à vue dañu bëgg ñu libérer leen sans condition le plus rapidement possible Benendi. bi entreprise bi nga xamanteni modi pick-up di ay euh, ay marocain jiite ko mom ko ñu arrêté lepp lo xamanteni radja euh, rajaxe kër yi la lépp loo xamante ni sàccum suuf la lépp loo xamante ni kër la ñu arrêté ko immédiatement ñi nga xamanteni nak ñoy autorité autorités compétentes yi les services de l'État compétents ñu créer au moins ñu tok ci table pour discuter xol nan lañu mëna régler problème bi